ci ay simili yu néew ñu jox leen xibaar yu wér te wóor. ak Dakar net daara du la rëcc ci réew mi. bon xanaa avant la fin du live di ngeen ñu wax ban lii la comme ça ñu comprendre euh, parce que Aba ni mu nekkee nii ku ci jugut bu dee safara la jëm en direct loolu je te le salue aussi en passant toutes les personnes qui, après les clashs, qui amplifient la chose, d'après Job Benen Tournure, euh, euh c'est vrai que bëri na ay kaañ ça par dans tous les sens mooy loolu mais léegi clash bi genèse ou clash bi fan la jógee c'est parti d'où seen diggante yéen a ngaa ko blindé nan ngeen def ba mu am clash mais fan la clash bi tàmbalee lan ngeen seq ba clash bi judd seen diggante yéen a ngaa ko blindé historique bi nag dafa damay wax ni wax naa ko sama classe bi passé nekkul ku la rek nga defal ko saamu mhm. xanaa mbay occupé mbay xanaa defoo dara. Mhm. dèjà loolu mooy indi classe bi classe li ko indi phrase bi ma wax bàyyi ku la pig rek nga defal ko sàmm xanaa occupé woo mbay xanaa defoo dara. parce que mhm. tey jii tey jii bon dans l'historique du classe dañoo amoon loo xamante ni mbay daf ñu daan envoyé ay pic ci ay sawnam tu vois. comme man mhm. li may envoyé ay ci ay samay sawn loo xamante ni chaque jour dañ naan la. aara kaay jël say affaire sa waay laal na la fii souvent noonu lay demee ñu ne mbay kaay jël say affaire sa waay laal na la fii donc loolu yàgg nga ko di si pop donc après mhm. daaw bi day sa dugalee benn pic ci def effet bi day sa dugalee benn pic comme d'habitude ni ñu doon pigante day sa dugal ko benn pic pic bi nag xam naa dafa xaw a mais day sa ci la ko dugalee benn pic pic bi nag bi mu dalee rek booy bi dem génne benn sound ne ko man du xaar vingt quatre heures ay pic yu normal la kii baax ba loolu moo déclenche classe. kon tooñ parce que. yéen tooñ wax naa la ne yow te problème yaa nekk di clash yow yaa ara yow yaa nekk di clash te ngaaka mais yow ara déjà yaa indi coow yëpp yow yaa yow yaa indi problème bi yow yow déjà bu clash defee nga bàyyi lépp ak ara waaw yow mosuma laa xamee lu dul animateur hip hop waaw yow hip hop nga. waaw hip nga xam. peut-être que fan yi nga njaxasoo rek di indi ay revue de presse. waaw. yaa ngi dama la bëgg a wax ni la bu nekkee yor nga ay nopp te doon déglu son. ngaaka moo commencé ay tigam <laughs> te fi mu commencé ay tigam mooy def effet soo fàttalikoo am na benn sound bu jiitu ci suñu sound mu ngi tudd tàkko faal <laughs> moom bañ tegee Tàkko Fall ba pare dañoo indiwaat beneen diri tuddee ko ndibaa bi ndibaa bi yee moom mu dem génne sound daal di koy tuddee metti ni wax ci couple bi ne Tàkko Fall lu mu njool njool buy xool pañe bi day téen man may mhm. ndibaa bi ngay séen est que yaa may dégg kon man njëkkeewuma bi je me rappelle je me rappelle de ces deux chansons là ñaari sang ne nga battre xam nga Libaati moo njëkk a génn hmm. metti nii Tàkko Fall moo njëkk a génn metti nii moom moo ñëw ne Tàkko Fall lu mu njool njool buy xool pañe bi day tiil man maay ndibaa bi ngay seen hmm. ma génnaat ci def effet ne tabaski naa maye xar mu def effet ñu forcé ma king te ku ko miim nag yaa ngi fii Mm-hmm. yoru ñu tous bëgg a maye bëgg dañuy maye gën a endetté jongalu néegu góor bi ba tey looloo metti nii mm-hmm. pour ma man ko ne ko ci sa saawnu metti nii bi nga ma waxoon metti mm-hmm. jongalu néegu góor bi looloo metti nii c'est ce que j'ai répondu mu gis ci boppam mu xëy suba kon man tooñu ma dañ maa tooñ bàyyi saaga néega nag bi ma koy wax ah, waaw ba tey mais bàyyi saaga néega bi ma koy wax di saawoon bàyyil saaga du woon moom rek a doon saaga boobu ñi doon saaga ñëpp a ngi may comprendre te bàyyil saaga du picc dëgg la ni waaraatekat yi di def gis baaxul nga ñëw leen lii baaxul ah. te loolu ku ci def sa bopp yow yaa tooñ sa bopp euh, bi mu jotee yow yaa pic mais classe bi aara yow yaa yenu guerre bi quoi lan la da nga histoire wala kële moom dafa leen a bàyyi ma yoo xool qu'est-ce qui s'est ba permutation bi pourquoi ngeen suite ci affaire yi noonu ba mu ba mu dañ koo ping pong dañoo teg fii teg. waaw. fii teg lañ def. ñu def nii yëkkati ma ne ko maa moom teg mu ne maa moom fii ma ne ko ku gagné yaa jël pour nga àppoo waay ñu defee nii taj ma gagné ñu ne jël teg feeñ rek ma daal di am bi ma àngoo coow li nekk def ma nekk ci li ma ci war a mu tere ma lekk tere ma naan tere ma laal cuus tere ma lépp mhm. parce que déjà déjà déjà bon peut tere ma laal mooy mbaam <laughs> kii mooy mbaam yow yaay mbaam yow yaay mbaam <laughs> non mais loolu wax naa ko ko sama benn bi may def classe naa ko may classé te du ma am na pièce boo def nga ko blende aussi si première sound bii nii di nokk national parce que da nga si am loo wax ne euh, bu fekkee mbalax nga koy def am na piège boo def def man ce que j'ai constaté mooy da def piège ne ngaa ko blende bu fekkee sound bi danga nga koy def rythme mbalax def ma ko vocal tu comprends un peu sound bi si topp Baba Ndiaye bi muy répliquer dafa dem indi arboré le le style de Tupac da ko doon iri si bu ko jay ndel bee ko jay parce que déjà boo ndeloo nii da ngay foog ne yaay Tupac gis nga man li ma lay bëgg expliquer euh, boo boo gisee par exemple classe bi ñëw ah, boo gisee classe bi ñëw déjà man bi may def noq national naturellement la ñëw man du ma forcer ay titre parce que déjà boo xoolee ci deuxième titre son bi moom li mu indi comme Petaw rek moom laa def tuddee ko Mbaye taw Sow mhm. bon noq national dafa ñëw indi rythme parce que man daaw planchante ak Ngaaka Blindé bi dama ci am expérience bu mag mooy que daaw dama rab lu bëri dama concentré trop sur les sur les mesures sur les couplets di rapper rek xam nga tu vois ba nga xamante ni j'étais pas très concentré sur les refrains tu loolu moo nekkoon sama sama sama clashante sa daaw j'étais pas trop concentré sur les refrains j'étais trop concentré sur les couplets su ma ñëwee rek ci couplet benn refrain moo viraloon mooy mbay la mbay Baaba Njaay la mbëla c'était le seul refrain viral boo xamante ni moo nekkoon ci ci sama clashante daaw alors que moom il avait beaucoup de refrains yoo xamante ni dañu doon viral ci TikTok bi viral ci internet bi comme seen boum boum boum pour da ngeen di tuur boobu viraloon na mbay lëmbe viraloon na donc ay refrains dañoo nekkoon ci dëgg donc après j'ai eu l'expérience par rapport à ça pour dire que voilà le gars il se concentre beaucoup sur euh, les refrains donc man cette fois-ci je vais aussi faire des refrains de ouf malgré que sama couplet dina ouf mais samay refrains aussi day nekk loo xamante ni dañuy viral léegi après si la commencé léegi lu ma def couplet aussi damay concentré sur refrain d' ailleurs boo seetloo ren loolu mooy ngay sentir différence que ni cette fois si j'ai eu beaucoup de refrains yoo xamante ñoo gën a viral ay refrains tu vois et que je je me suis dit que ni man amul koo xamante ni mooy nu mu tudd sax rabum bi am mbalax bi def naa ko ci sama sound bi ñafal ñafal ñafal c'est des sons yoo xamante ni rambax la comprendre man mun naa mais bon je me permets pas en clash man man je me permets pas en clash de faire des sons rambax parce que man quand je fais des sons en clash c'est pas le public de rambax qui ma ki ñoom ñoom ma tax a jóg mais j'essaie de trouver des des des des figures de style affaire yu profond laay jéem wan benn gain boo xamante ni il était trop concentré sur son boulot wala mu woon ci beneen atmosphère ba amul temps wu déglu man kooku moom gën a ñor pour ma def loo xamante ni moom il va se day toogaa am nostalgie wu li mu doon dégg au temps li mu doon am ci hip hop li mu doon sentir parce que déjà pour vous dire si c'est pas des sons de clash si vous sortez un son comme yu ñu génne nii mënul am sax un million de vues sur YouTube parce que déjà ñi ko war a déglu wala ñi ko war a bëgg ils sont pas concentrés sur YouTube ils sont sur ñu ngi seen liggéey ñu ngi seen beneen affaire ils sont tellement occupés ci course ci dàll si leneen ak leneen donc ñooñu noonu ils sont pas assez focus sur YouTube donc quand quand vous faites des nag ñooñu dañuy ñëw ah, boo leen waxee vingt ci ay simili yu néew ñu jox leen xibaar yu wér te wóor. ak Dakar net daara rëcc ci réew mi.